peggu moroomam la ñu daal di def ngir ñëw déposer seen caution mu doon beneen jéego ngir daal di fësal candidature Abdourahmane 2024. on est en phase maintenant de finaliser daanaka mën nañu wax ni jamono ji lépp yemb na li des rek mooy fexe nuñ koy euh, jeexalee rek constituer li nga xamante ne ni moom mooy dossier yi ngir ñu dem fale ca conseil euh, constitutionnel ngir mën a déposer dossier ki nga xamante ne moom mooy suñu candidat. conseil constitutionnel. attekat bu tribunal or classe bu ndakaaru eh, daal di eh, joxe dogal ñu daal di delloo Ousmane Sonko eh, ci list électorale yi loole nag àndandoowu docteur Abdourahmane Diouf yëf yi am lu mu leen daal di def. El Hadj Abdourahmane Diouf dafa yàgg plaider pour une inclusion maanaam ku bëgg bokk ci élection nga ñëw nga bokk kenn bañ laa kenn bañ laa téye ndax loolu moom mooy suñu yitte ci Sénégal. ñaari weer képp moo daal di des ñu dem ci joŋante njiitum réew ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent caisse des dépôts ak consignation daal di jot lu ëpp ñaar fukk dépôt wu caution doon ku njëkk ku fësal candidature am 30 octobre 2022 bi ñu génn coalition bi nga xamante ni nag njiit ki di docteur Abdourahmane Diouf bëgg amalaat li ni mel ci ngoonu ñaar fukk ak juróomu février 2024. am nañ force de proposition bi nga xamante ne tey jii Sénégal yëpp umpulewul leen kan mooy Abdourahmane Diouf. bala ñu ciy dem nag boobu boobule candidat moo ngi liggéey eh, ci ay programme ngir Sénégal wante nag eh, secret eh, bu ñu denc la. ñëpp xam nañ ne élection présidentielle rendez-vous bu mag la diggante candidat bi ak peuple am loolu waral ba ki nga xamante ni moom mooy Abdourahmane Diouf du yàgg dara ci fan yi di ñëw dina présenter li nga xamante ni moom mooy gis-gisam ngir mën a doxal Sénégal.